internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. compter ñaari at ni ngi nii bi suñu yaay suñu sëriñ nga xam ne moo ñu yar jugee mais terewul liggéey bi mu liggéey ci yare yi ci xale yi ak ci alxuraan mu ngi mel ni jugeewu fi waxtu wu xale yi jàngee rek dafa mel ni mu ngi teew loolu nag li muy tegtal rek mooy li arab yi wax ñun bes bu ñu fi jugee na ngeen xool suñu gannaaw suñu gannaaw rek di ngeen gisee suñu gannaaw mel rek loolu loolu mooy wane ni ñu meloon ak ñu fi def. donc ñun njabootu Seyda Mariam muy njabootu deretam muy njabootu roxam bi nga xam ne moo gën a yaatu ndax tey daarul Quran tasaaroo na ci àddina bi yëpp fii rek ñetti daaraa gi si muy daara Mermoz muy daara Sacré-Cœur muy daara Cheikh Abdallah boo demee Nigéria boo demee Ghana boo demee Strasbourg en France nga dem États-Unis dem Londres foofa dem xale yi Seyda jàngale alxuraan ñu ngi continuer di jàngale alxuraan di ko tasaare comme li nga xamee ne noonu la ko yàlla bëggee parce que alxuraan mooy garanti mucc yàlla daf doon wax ne bàyyi nee na alxuraan rek mooy bi nga xam ne buum bi nga xam ne boo téyee sa benn loxo xamal ne yàlla moo téye ci beneen côté bi te donc amoo benn chance pour pour pour pour sànku donc ñu ñu sant yàlla bi ñu juddoo yaroo ci keppaar boobu nga xam ne lu baax rek lañ jàng ak liggéeyal lislaam te xam ngeen ne jamono ji jamono ju métti métti la adduna bi xamuñ ndax day bëgg a tukki Covid bi am na fi jeexee ba mu foog ne jeex na euh, guerre Russie Ukraine ama tegu ci bu nekk coono nit ñi dund ci ay méttit dund bu jafe lépp métti waaye nag euh, métti toujours euh, lan moo koy saafara moo ñu dellu suñ borom ndax nag suñu yàlla jugee yëpp li mu wàcce yëpp ci àddina bi ni ngi jóga ko sabab ak seen i seen i jëf yu jaaw donc ñun comme yàlla dimbali na ñun ci alxuraan te mooy téere yàlla bi nañ ci sax ba dara ba ñu cee génne buñ ci saxee non seulement dañuy xëccal suñ bopp jiwu ak jàmm mais lépp lu ñu wër jàmm daf fay nekk fu alxuraan nekk rek lu baax a fay nekk bàyyi nee na boo jubloo sa borom rek di nga mucc ci métti yeeg naqar yeeg souffrance yeeg yooyu yëpp ndax jege yàlla mooy am ak dal ala bi dikrillaahi tatma'innul quluub donc ñu ngi sant yàlla pour célébrer Seyda après deux ans bi fi jógee di gën a bëgg rek parce que mbiram mi ngi yokku delluwul gannaaw benn yoon mi ngi gën a teew nit ñaa ngi gën a soxla li nga xam ne mooy éducation islamique alxuraan di tasaaroo tasaaroo na fi mu ne am na Sénégalais boo xam ne sax moo dem ba gagné con euh, premier prix ci concours international bu dul te loolu yaa booy moo njëkk a inauguré yoon woowu en 1998 moo fa moom ko njëkk inauguré bi muy jóg di défendre daara yi nit ñi dañoo waxoon dañ doon wax ne ñiy yóbbu seen daara yi seen doom yi daara bëgguñu daara si daa xeex ñoom xeex bu métti boobu kenn ñemewul woon taxaw pour défendre daara yi ba mujj gi ñëpp dellu gannaaw ñu fekk si ko te alhamdulilah ut alxuraan tasaaroo daara yi loolu liggéey liggéeyam la moom moo ko def il ñu rendre ko omage boobu ñun nag fii ay doomam lañ ak ay taalibeem ak ay ñum yar suñu wareef mooy di ko teewlu toujours du seet li mu bëggoon moom li mu bëggoon dafa bëggoon nit doo bëggoon xale doo bëggoon jikko ju baax doo bëggoon di dimbale doo bëggoon am xol dënn bu yaatu di jéggale loolu rek laay dénk ne loolu jikko yu rafet yooyu nekkoon ci moom bi yëpp soxla ko parce que loolu fu mu am rek noonoo ak bañante xiiroo ak ngaañoo du fa am ndax bu bu bëggante amee rek jàmm dafay am donc loolu moo yore jàmmi àddina bi yëpp ñu ngi sant yàlla bi ñu joxee seydaa ñu nekk fii mu kon liggéeyam continuer ñii nga xam ni fii ñëpp ay doomu roxam lañ ñu taxaw taxawaay bu dëgër ak njabootam ba mu mel ni moom moo fi toog say di organiser lii nga xam ne at bu jot daf ko daan organiser muy le 24. vraiment sant yàlla la maanaam nit ki am na loo ne boo ko defee dafa nekk luy law ba faw dara du ko mën a arrêté donc ñuy sant yàlla ci bés bi di wax ne aussi euh, ñaari fan yëpp ak li ko jiitu dañ doon jàng ay kaamil. Euh, pour ñaanal yaa booy Seyda ñaanal baayam ñaanal rajo Markan ñaanal jullit yëpp yàlla yokk leeram mais pour ñaan yàlla aussi defal ñu jàmm fii ci réew mi parce que jàmm bu amul cest à duñ mën a kenn du mun a jàmm yàlla bu normal sax doo ko mën fekkee dëkk yaa may Afghanistan am dañu teex di rayante ji boo toogee sax di julli ñu ñëw jël benn bomb dugal ko ci jàkka ji tàkk ñun yàlla musal nañu loolu amul Sénégal te pourtant dëkk yi ñu wër yëpp am nañ ko xoolal Burkina xoolal Mali ah xoolal euh, yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ñu fayal nit ñi tout le temps mais fii loolu amul fii lu tax parce que nit ñi dañoo gëm yàlla ba pare nit ñi dañoo fonk alxuraan waaw te dañoo fonk nit yàlla yi ndax nit yàlla am na lu leen yàlla di rusee boo xam ne bu balaa naroon wàcc sax buñ tàllalee seen loxo yàlla day arrêté balaa boobu wàcc donc ñun ñu sant yàlla di encourager. xale yi nga xam ne ñoo doon jàng alxuraan ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàngal ñu continuer li nga xam ne mooy masira bi maanaam dox bi doon yaa doon dox pour xidma xuraan liggéeyal xuraan liggéeyal xuraan mooy liggéeyal sa borom mooy liggéeyal baayam parce que Baay Ñas daf ne fal tajal xifza kitaabika karim karamati ila liqaayika al-azim jullit bu nekk am nga karaama man sama karaama yàlla nekk alxuraan donc yaa booy bi liggéey ba liggéey ba tuddee ko xaadimatul xuraan donte sax am na ñuy jéem a sàcc turam boobu xaadimatul quran mais loolu mbiru baatin la kenn mënu ko jël bu solo boobu moom te yàlla woo ko dafa lay lakk dafa lay taal jëppet ni safara waaw xaadimatul quran Seyda rek moo ko moom daaru quran moom rek moo ko sos àdduna bi yëpp amul ñaari daaru quran mooy daaru quran bi moo nekk Sacré-Cœur nekk Mermoz nekk fële si ñoom ab Abdoulaye nekk ci àdduna bi yëpp waaw loolu mooy wane ne mbiru yàlla lu loo xam ne li daf ko defoon rek pour boppam ak pour këram ak pour njabootam donc ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñi teew euh, di ñaan yàlla yàlla nañ fi jëlee yiw euh, kaamil yi ñu fi wàcc yëpp yàlla na dellu ci ku nekk mu nekk barke nekk ak wér nekk wërsëg nekk mucc ci suñu réew mi di ñaan yàlla yàlla bu mu jaxasoo ni réew yi ñu wër te ñu ngi jege si fii ak dina am ay jongante ci wàllu euh, xëccoo ji jiite réew mi li nga xamee ne amoon na jongante député yeeg maire yi ba yàlla def nañu génn ci jàmm lii di ñëw aussi yàlla nañu ci yàlla génn ci jàmm mais amul lu gën a for daal téye ci téere yàlla bi ak alxuraan fonk waa alxuraan loolu mooy garantie bi nga xam ne moom rek moo ñu mën a sauver loolu laa amoon ci lu may wax di leen gërëm yéen ñëpp seen tawaay merci. oui en fait j'ai c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi en ce jour deuxième anniversaire euh, du décès de notre mère Cheikha Mariam célébrer sa mémoire euh, par des lectures du Coran. que nous avons commencé depuis trois jours euh, par une Hadar Juma qu'on a fait hier et aujourd'hui par une cérémonie pour écouter les enfants qu'elle a éduqués et le Coran. waaw kaame léeg-léeg ñaata nga xam alors donc tout ça c'est ce n'est que du bien sur bien c'est, c'est une lumière sur une lumière donc euh, c'est une c'est une pour le Sénégal d'avoir une personne comme Cheikh Amariam. Parce que vous ferez le tour du monde, vous ne trouverez pas une femme qui est comparable à elle. Il n'y pas. On a eu la chance qu'elle soit au Sénégal. Et elle a formé beaucoup de gens, elle a éduqué beaucoup de gens. Et tous ces gens-là sont des phares et des lumières. Là où ils se trouvent, ils ne, ils que le bien. Donc euh, nous célébrons sa mémoire, nous célébrons le fait que ce qu'elle a implanté continue

le fait d'organiser du Coran et de lire le Coran est devenu une fierté nationale pour tout le monde. Donc c'est un hommage qu'on doit lui rendre. Et c'est l'occasion de le faire. Donc nous remercions tous ceux qui sont venus massivement répondre à cet appel de commémoration de sa mémoire par la lecture du Coran, par la récitation du Coran, par les prières que nous faisons pour elle, sa, famille, sa et large, pour le Sénégal et pour le monde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 moo ko tax a jóg